li waral ndaje mi laa bëggoon a dikk ak yéen euh, mobilisé woon ñi nga xamante ni mooy ñi ñi war a àndal ci liggéey bi nekk ak ñoom ci terrain bi depuis bu yàgg ba léegi ñi ngi def ay réunion di waxtaan ah d'ailleurs nag ma wowoon leen pour ñu waxtaan gën a waajal élection yi nga xamante ni ca la ñu jublu ah fas yéene nag euh, commune bi nga xamante ni moom lañu nekk muy commune bu Taïba Cekkeen ñu fas yéene fa tàllal suñu loxo sëmp fa suñu dënd ndax euh, li ko waral mooy xam nañ ne ñun ci suñu bopp commune bi mënuñ caa ñàkk dem ndax askanu teebe Cekkeen wa fa nekk tàllal nañu loxo wax nañu ne soxla nañu fa pour ñu ànd ak ñoom liggéey liggéey bi nag ñu ngi koy ànd ak président Idrissa Seck ndax euh, li ñuy wax ku ñemee dañ laa déy te wax dëgg yàllam depuis ñu ànd ak moom rëccu wuñ ci dara. xam nga tey ma mënuma laa limal ne la lii manqué ne lii manqué ne mais pour benn rek boo xamante ni lu gën lu lu gën a yanu maanaa tey jii boo fa doon dem yor moto mënoo dem parce que amul yoon. xam nga loolu commune boo xamante diggam ak Mbacke Bawol 9 kilomètres la amul yoon tali amu xam nga loolu ñàkk liggéey la moom courant bi réglé wul ndox pour nga am ko problème lay doon jigéen ñi ñu ngi nii amuñ benn financement amuñu ko yaa ngi dégg bi la war a mën a nekk nekku bi mu fa amee yàggul. xam nga comme yu mel noonu nag su fekkente ne ma nga fay déggee te Taïba commune la li mu war a mën am war na koo war li mu am war na koo mën a war na cee mën a jot wàcc ci biir askan wi te wàccul te président Macky Sall jàmbaar la xam naa ne jàmbaar la man li muy li muy liggéey te moom nag maa ngi koy lancer appel ñi nga xamante ni ñoom la teg ci commune yi ñu war ko liggéeyal bay ba mu seetaat ko parce que élection yi di ñëw su deful ay changement ci commune am yi bu fekkente ne ña fa nekkal président Idrissa Seck ànduñ ak moom moom danañ ko daane moom nañu bàyyi bu bu bu élection amul ñuy nekk campagne guddi campagne bëccëg politique guddi politique loolu nañu ko bàyyi te ñu bàyyi réew mu ñuy jabu di sey ko taal guddi di ko taal bëccëg nañu bàyyi bu ñu waxee ñu ne Macky Sall def na lu arrangé deful lu arrangé wul askan wi li mu def ni lu protéger nit ñi la lu protéger nit ñi ci la nekk loolu laa bëgg nit ñi xam ko loi bi ñu taxaw di ko xeex dañoo gëmut seen bopp nañu bàyyi seen caaxaan yi ak seen tappale yi te dem liggéey nañu ko ba loi bi lu intéressé nit ñi la moo tax mu teg ko xam nga ne bu ñu wootee mars ay ñu naan ay nervi dañuy dugg ci biir ñoom ñu lakk oto jàmbur lakk ay Auchan lakk intérêt Sénégal yëpp ñu dem lakk ko fuñ ko teg teguñ ko ci dara léegi nag bu ñu tëree loi bi képp koo xamante woo woote te nga am daje yow yaay responsabilité bi lu fa yàq yaa koy fay baa nga dem tëdd kaso mu jax takk lan non kooku ñun amuñu waxam na dem lijjanti ci mbësal mi rek waaw parce que man fi ma ko séntoon mooy waroon naa dépassé sax toog ni ñu lay bës ak ñàkk bës na dem lijjanti am mbësam moom ba pare